moo di taaw euh, ñoom papa Thion papa dañ lay daal di nuyu rek gannaaw bi ñu la dalalee masawu la jaale la ba noppi. asalaamaaleykum ban site la. Euh, yi bari nañ waaw. Mm-hmm. Mm-hmm, lépp jàmm rek. Mm-hmm. ça va alhamdulilah. ñu ngi koy jaale ñëpp rek ku ne Thion ku ne mën na ko jaale sa morom. ndax ñi bokk ak moom sax defe naa ne ñi bokkul ak moom ñoo ëpp fuuf. ay million de personnes yoo xam ne euh, ñoom affaire euh, daf leen a metti mhm. ndax dee moom neexul kenn te ku mel ni moom nga xam ne icône la woon monument la bu demee dina nii rek lay mën a demee quoi ñu mhm. sant yàlla nag man magam laa ñoo bokk ndeeg baay ndeysaan waaw man maa nàmp jox ko mu nàmp mhm. waaw ah, tey sa rakk jooju ngay taaw jiite leen ñoom ñëpp ah, boo amoon tey eh, benn anecdote booy wax ci moom lan lay nekk benn souvenir mhm. souvenir boo xam ne bii vraiment mooy euh, ni mu yore woon famille bi mhm. taxawoo koy njaboot gi yëpp mhm. ak ñeneen ñu njaboot gi sax nga xam ne ñoom moom ñëpp la fi nekkaloon Thione Seck waaw daan dimbali ñëpp di jox ñëpp di jàppale ñëpp lu mu am bokk na ko doomu aadama yi loolu moo am solo nag dëgg boobu la laa laay fàttaliku ci moom largesse am ak euh, maanaam tabeb waaw Mhm. tey un an déjà ci suuf mu daal di ko dund nan nga koy dundee tey yéen seen famille ak ñi nga xam ne moom moo di njabootam rawatina soxnaam si nga xam ne suba ba léegi ñu ngi gis mu ngi tuur xéewal. waaw xam nga lii moom mm, metti moom foo ko natt wees na ko ndax ku mel ni moom boo ko ñàkkee rek comme li ma wax sànq rek day metti ci fépp. Mhm. waaw day metti fépp donc bu ñu toogee ba un tey jii mu am ko ci biir suuf. Mhm. su souvenirs yoo xam ne yi dina doy waar trop na mais nag dañuy gëm yàlla rek mhm. xam ne yàlla rek fi nekk mhm. te yàlla bu soxlaa ko soxla ñàkk mhm. kon nañu gëm yàlla xam ne yàlla moo fi nekk te yàlla mi ko rakkam ban message nga koy jox en tant que waajuram Euh, Waly sax day du taaw sax parce que Lamine Naar mu ngi fi. Mhm. Lamine Naar Seck mooy taaw. non ci kii lay wax Kiné. moo tax waaw ci waaw ci Kiné Waly mooy taaw. Mhm. mais Waly dafa jël lépp jox ko magam. ndeysaan Lamine Naar mu mhm. jël lépp jox ko magam ne ko lépp du dama def dara. tànk yaa ngi fi nekk. waaw te yaay dirigé lépp mm-hmm. jox joxaat naa la lépp mm-hmm. Lamine tamit ne ko carrément mm-hmm. waale maay sa mag maay sa kilifa mais fi mu toll nii mu naa mën a ko delloo naa la lépp nga ndeysaan ndeysaan nga loolu tey muy doon loo xam ne échange boo xam ne ñoom ñaar seen bëggante ak seen tofeel foo ko nag wees na ko dëgg la dañoo bokk ñoom ñoo bokk bokkuñu baay dañoo bokk ndey ak bàyyi parce que affaire bi famille la bokk ndey baay moo fi nekk donc loolu moo mooy li nga xam ne lii moom moo fi am. donc lu ñu koy li ñu koy dénk rek mooy taxaw taxawaayu baayam bi mu taxawee ba léegi. na continuer noonu parce que lépp lu baayam doon def ci famille bi. moom Wally moo koy def. lépp lu bàyyam yore woon ci famille bi muy mhm. man di ñëpp mhm. tey jii moom ñëpp waali moo yor ñëpp mhm. ñu ñëpp waalee ñu yor ñu ñëpp di ay baayam ñii di ay bàjjinam ñii di ay ndeyam ñëpp waali moo leen yor te li muy def ci famille bi dañ ñaan yàlla euh, mu yokk te day yokk nag ndax day yokk bu soobee yàlla parce que li muy def moom mën na ko li muy def gëm na ko li muy def tamit yéene na ko waaw donc tey ji mën nañu wax ne bu ñu euh, mën nañ bu du ñu fàtte Papa Thione mhm. mais Wally taxawaayam mhm. dem na ba nga xam ne fi mu toll nii lu metti woon tey ji wàññeeku na. tur bi naka la papa. Abdoulaye Naax Seck. Mhm. waaw ah, mu nekkoon papa yi ab. macha allah. moo di ku leen cëral. yàlla daf lay cëral. ku leen cëralul tamit. dara yàlla cëral na leen ba pare. moo tax man ku mel kii. ku ko fonk laa. Mhm. da nga baax da mhm. bëgg laa. Mhm. macha allah macha allah papa Ismaïla ñu nuyu la. waaw dañuy dimbali xam nga loolu problème dañuy ñëw tey. waaw parce que suñu mag dafa génn àdduna. muy loo xam ne nag doone ne metti na. dañuy sant yàlla rek. waaye nag bis bu mel ni bu ñëwee. vraiment doo nekk. doo nekk man man personnellement sama xarit la woon. sax musique bee ñu boole. moo ñu boole sax mais. sama xarit la daal si gàttal hmm. wax boo xam ne mën na mën na remplacer li mu bëgg wax hmm. tey ban anecdote ngay fàttaliku ci moom tout le temps rek sa xol tooy non non déet nekk nii hmm. donc du def interview du dëgg ñëw naa daal pour marquer de ma présence ah un an sous de mon grand frère Thione Seck waaw léegi def interview vraiment nekk moom pour faire euh, ay. dëgg la dëgg la maa leen di remercier nag yéen toute la presse. Mhm. parce que yéen ngi fi taxaw di def seen liggéey. Mhm. di jéem a événement yi. Mhm. donc bon ñu ngi ko jàll waa Sénégal. ñu ngi lay jaajëfal baax ñun ñoo ko ñoo ñoo ko ñàkk. voilà donc du ma dugg si interview daal. dëgg la ah. yàlla yàlla ko àjjana. Ah, ah, na mu ngi tuur xewal suba ba tey lan nga yëg. yëpp lu um, tiis xam nga la ñuy wax rek yàlla moom lépp lu mu teg doomu aadama doomu aadama sañu ko wax la pourquoi mu teg ko li ni mel mhm. parce que xol du oom ba ñu koy bës mhm. euh, waaye xam nañu ne am nañu njot bu rafet mhm. ci Papa Thion ndax dégg nga sama mbokk yooyu le waa kër Alaaji Sidiya Dramé ñi nga xam ne ñoo doon dajale xale yi di wàcce kaamil depuis euh, Papa Thione demee ba tey fukki fan ak ñeent ci weeru mars mhm. atum 2021 mu yemoon ak dibéer mhm. dimanche bu jot mhm. dimanche bu jot ba tey jii mu def at ñu ngi ñëw ci kër gi fii di fi wàcce kaamel mu nekk lu daw yaram mu nekk lu am solo macha allah. Mm-hmm. te loxoom la mm-hmm. yàlla ko yàlla yërëm te yéexe ñu lépp luñ fi jàng ci ay alxuraan mm-hmm. wàcc kaamil yi suuratu yaasin yëpp yow en tant que nitu média tey lan nga dund jëmm ju seelu jooje loo xam ne boo ko xalaatee rek sa xol tooy. oui Papa John man sama nit la. <laughs> Papa John ñun dafa tombé suñu famille yëpp daanaka ñëpp ko bëgg. Mhm. man moom muy lu neex muy lu naqari ñëw naa ba tey émission bu ne def naa ko ak moom. moo xam tabaski ma ñëw bett ko du ma ko du ma ko tàggu su ma ñëwee rek ndeysaan ne ko papa Thion mu ne ma man yow jaaxal nga ma boo boo amee jëkkër nooy def. Mhm. looy looy wax si lamin ma ne ko waaw mu amee jëkkër moom dina comprendre. wallaay lu bari ba yàlla teg tam bi ba mu ko tegee nattu tamit ca Cap Manuel mm-hmm. saa yi may liggéey avant may liggéey faaw dem jaar ko seetu ko ñu toog waxtaan si lu bëree bëri nag si lu bëree bëri yàlla xam na loolu mm-hmm. mu su ma ko woo téléphone mun a ma kokan la mm-hmm. dina ma caba di ma ne ca cabawaay moom cabawaay la ma cabawaay loolu rek la may woo toon ko musuma gàntal dara wax dëgg yàlla moom moom mos a teg loxoom bu boole ma ak Waly mhm. boobu Waly génnagul dara mhm. man ma invité woon Papa Thione Walfadjri mhm. mu jël loxo indi ànd ak Waly ne ma kii am na lu muy waajal du tey ndeysaan barki yonent bi famille bii dama fay bokk ndeysaan yal na yàlla yërëm ko te yéexee allahumma amin yow tamit ñu lay masaw ndax li ngay expliqué yëpp wane na ne euh, famille bi bokk nga ci sa papa la waaye tamit nekkoon na euh, ku la jege woon lool ndeysaan jërëjëf yéen tam ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal liggéey bi nekkul yomb gis naa lépp parce que man tam dama ànd ak euh, Fatou moom tam ma bokk ci réalisation bi voilà merci beaucoup. tonton ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay. en tant que tey yow xaritu Papa Thione nga xamante ne dalay woy ba sénégalais ñëpp xam la muy woy boobu mu xam ne dañ la ciy wax njool si kim tey lan nga ñu mën a wax ci Papa Thione loo leen waaw coon moom dafa nekkoon nit koo xamante ni moom Thione Seck rek moo xamoon Thione Seck nit ànd ak Thione Seck ba nuñ fi jógee te xamul Thione Seck à cent pour que dafa bëri ay valeurs. te valeur yi nekkoon ci moom yombul ci nit bu mu nekk déjà dot bi ma lay njëkk a jox rek mooy fépp foo ànd ak moom wala lépp looy lijjanteeg moom nu dayo bi mënti toll bu nu xësee nodd pare na ca loolu lim lañ njëkk a laaj ndax yaa ngi njàpp nga ne ko waaw mun la di xaamal ñu julli wala nañ jël ci jàkka ji ñu julli beneen bi ma ciy teg mooy ci àdduna lu mu metti metti metti metti metti metti dëgg rek la lay wax yàlla rek tax kon donc yooyu yëpp nekk ay valeurs yoo xamante ni nii su dajalew ci benn nit rek donc dafay doy waar trop trop trop trop ba nga xamante ni Thione Seck daal mooy Thione Seck daal ci gàttal. yéen relation ngeen amoon yéen ñaar. waaw moom moom moom lépp la woon ci man moom xarit la woon. bàyyi la woon ci man lépp la woon ci man complice la woon ci man donc moom lépp la woon daal ci man waaw waaw moom lépp la woon ci man tey di 14 mars ñu fête li nga xam ne mooy un ci biir suuf mu métti lool tey ban yëg-yëg nga am. waaw métti rek métti rek naqaru xool soo xoolee dama xamul nu ma leen def sax mais wax bi sax tiis na ma parce que su ma xool wax dëgg yàlla daal mu ngi noonu daal waaye nag comme ay jullit lañ tamit te danoo war a muñ rek. xam ni loolu la yàlla dogal. tey lan ngay dénk njaboot gi nga xam ne moom la bàyyi ginnaaw di taawam euh, Lamine naax ak ki nga xam ne mooy Waly Ballago Seck. waaw ñu muñ rek parce que Thione Seck sa baay rek doy na comme ñoom seen baay gaynde la te gaynde googu nekk seen baay gaynde du jur muus man gis naa ci ñoom gaynde ak njàmbaar donc dama leen ñaanal ñoom fan wu gudd rek ñu sut seen baay fan waaw na nag ko muñ euh, naa la. maa ngi lay fay. tur bi naka la. ma dikkee Guèye Babou Mbène Tukulóor Koura Ndiémé borom jigéen ñi. sa relation Papa Thione lan la. waaw ah, moom sama goro la. waaw hmm. ah, sama goro la parce que jaaga sama jarbaat la. waaw ah, sama papa sama papa ko may. kii ne moog Moïse Ba. Hmm. maamu Waly Balago Seck. Hmm. tey boo amoon témoignage yooyu def ci Papa Thione lan doon. non man témoignage yi ma mën a def ci Papa Thione bu ma fi nekkoon fii ba ngoon du ma pare. parce que man chaque suba teel maa doon jënd journal ñëw fii mënu ma dig lu xew ci dëkk bi ma wax ko lépp hmm? bu may dem mu yëkkati cinquante mille dox hmm. ma chaque jour waaw waaw hmm. ba pare nag ni ma yow doo sama goxo sama rakk nga dama laa bëgg man ni ma bëggee ñoom keebaak ñoom kii ak yooyu sax bëgg ak Ousmane yooyu euh, yow laa gën a bëgg ko ñoom waaw yore sama jabaan nag hmm, hmm, ci anim bu rafet respecté ko jox ko cër. bi mu génnee man maa ngi woon Casamance man sëriñ bi keroog daf ma téye ni man ko damay ñibbi. Ah. may ñibbi. Hmm. man quarantième jour bi rek laa fekke moom laa fekke fii ñëw bi ma ñëwee tamit ah wax naa li ma xam ci moom waaw man daal sama xarit la woon sama grand la. sama am di jàmmal ba pare nag ñu seq liggéey parce que affiche am yi mu doon defar yëpp maa ko doon defar moi je suis dans industries polygraphiques ba pare damay jaay oto aussi. ah d'accord you know. Hmm. yàpp. ban anecdote euh, ah, ñëw naa fii bi ma ñëwee mun maa yow dig heure yi ngay ñëw sama kër ay vingt-une heures ma ne ko non dama am benn ay commandes yu war a dem Gabon. dama manqué cinquante mille Kiné Diouf du ko wokk ah mënu ko Kiné bu wok jox ma cinquante mille ba pare jox ma dix mille li ma paasal loolu xew na fii ci ci bi man kër gi bi ñuy def fondement bi par exemple ñun ñoo fi nekkoon di garder kër gi man ak kati moom laa tuddee suma taabu jigéen ra ko jaaga moom laa tuddee suma taabu jigéen Marie Cathy géey you know mm-hmm. yàpp merci bi naka la Pape Burkhane Ndiaye euh, yow Papa Thione euh, sama papa la woon euh, ndax dama doon liggéey ci pavage yi programme pavage xalifa Sall mais bi ñu jàppee xalifa Sall bi mu amee woon problème ay tolof tolof mm-hmm. entreprise bi ñu doon liggéey affaire yi arrêté mu woo ma bi mu yëgee loolu na ma léegi yow lan ngay liggéey ma ne ko ah instant yii defuma dara parce que comme dañu jàpp Khalifa Sall mu ne ma ah borom kër bu ndaw de moomul toog mm. si la ñëw woo ma ma ngoon nga ñëw fekk ma penc bi mm. bi ma ñëwee fekk ko penc bi man sax xamaguma mu woo staff bi woo ñëpp ñëw taxaw mm. mu ne leen kii sama doom la euh, Burxaan la tudd fii la dëkk sax si koñ bi à part d'aujourd'hui léegi VIP bi moom moo ko géré waaw depuis boobu nag affaire bi bett ma sax parce que sóoruma woon ni moom dina dina toll naa ko foofu ba mu ba mu jël décision boo xamante ne peut-être mosuma nekk si milieu ñu bëri ñoom ñu ngi ci milieu am na ñu ma fa jiitu loolu responsabilité bu bu rëy la mu jox ma penc bi teewul boole mag doom bu ñuy wax Mouhamed Seck ne ko kii sama doom la ni ma la juree noonu laa ko jure depuis boobu nag ma commencé di ànd ak famille bi ci ànd bu rafet ba yàlla dogal Mouhamed Seck boobu sax sama doom bi am huit mois nii moom laa ko tuddee waaw maman Kiné tamit di ma bi bi Papa Thione gaañoo ma ñëw fii si kër gi. di jaale si jamono yooyu gisoon maman Kiné jafe woon na trop parce que kër gi dafa bëri woon nit ba si troisième jour yi moom bi ma gisul moo ma woo. na ma Burxaan yëg naa ne ñëw nga waaye maa ngi lay jaale papa Thione ndax ñàkk nga sa ñàkk sa pap ndax saay bu la daan woo téléphone maak moom dañuy toog wala souvent yow boo koy woo te fekk ñu toog mu doonoon koo xamante ne tegoon na ma fenn mu doonoon koo xamante ne tamit ku bëggoon arxuraan la mën naa ko seede ndax li ko gën a booleeg man moom sama xaritu papa la te sama papa sëriñ la woon da doon jàng arxuraan di jàngale arxuraan ndax mën naa ne sax loolu moo gën a tax moom mu bëgg ma joxoon ma cër ba ñu bëri naan Papa day favoriser kii wala Papa Thione day kii parce que nga ñëw bees fekk ñoo xamante ñoo la jiiru fenn moom mu jël la teg la seen kaw dépense bu am penc bi lu ñuy def man lay wax soxlawul facture su ma photo envoyé ko sax mu ne ma déedéet yow bul photo yow sama doom nga liggéey boolewuñu noonu la ma ko doon waxee ba un mois wala trois semaines avant muy gaañu euh, daf ma ne naa ko utal ay xar ma dem jëndal ko ay xar photo ko mun ne ma noonu soxlawul photo ànd la kii jaay xari rek ngeen ñëw fii ma ànd ak kii jaay xari ñu ñëw fii fekk euh, euh, cinq heures jot bi cinq jotee léegi waa gi ne dafa yaakam day demar mu ne ko noonu kaa ñu julli cinq heures pare waa gi ne ko noonu moom dafa sol ay yëre yu tilim te si mbaaru xari la jóge day bàyyi ba egg papa coon ne ko déedéet kaay nga julli julli jot na pare kan moo la sax na di nga eggaat ma forcé waa ji waa ji jàpp fii ñu julli cinq moo ñu mm-hmm. bi ñu paree julli mu mu fay waa ji ñu àndaat dem ñibbi mm-hmm. te lu weesu loolu tamit chaque àjjuma dafa ma daan wax may indi ay xale ñuy ñëw fii di jàng arxuraan. Mm-hmm. waaw kon nga xam ni kooku soo toogee fii si kër gi soo xoolee doom yëpp ku nekk nu mu la tuddee nga xam ni kii ku doon dund lislaam la. waaw parce que nit ñi parfois dañuy gis côté zaahir rek mais nit ki boo ko jegewul doo xam lu muy dundu si wàllu digganteem ak boroomam. waaw man mën naa ko seedal ni ku bëggoon arxuraan la ku yar njabootam si arxuraan la mm-hmm. ba tey jii nii ñoom Aïcha ñoom Mouhamed fu ñu namee waxtaanu diine mm-hmm. dañ lay woo pour ñu ñëw waxtaan waxtaanu diine comme li yonente bi di wax rek ne alxuraan yowmal xiyaam dina yor jëmm ñëw ramu yàlla na ko arxuraan dam mu arxuraan bi nga xamante ne moom ku doon jàng arxuraan dalay teral su ma indee fii ñu ñëw jàng arxuraan day yëkkati xaalisam jox leen kii na yëkkati teraanga jox leen ma yóbbuwaat leen ba beneen semaine ñu ñëwaat chaque semaine ma ñëw indi équipe boo xam day jàng arxuraan waaw moo taxoon ma ne tey mënu woon ñàkk bañ a wax loolu ndax Papa Thione ku dëggu woon koo xamante Sénégal boo gisee sax nit yi di ko di ko wax dafa compliqué wala dara dëggoom la nekkul nit koo xamante ne dalay war a wax dara di ko nëbb wala di bàyyi ba nga dem wax sa ginnaaw waaw dala xay wax nga dégg ko mu neex la da nga koy dégg mu naqare la da koy dégg après loolu jàll mu dem ci leneen moo tax nag ñu koy ñaanal fi mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jóge yonente bi dafa wax ne fa iqra qur'anu fa innahu yaati yawmal qiyaamati shafi'an li asxaabihi mu ne dee leen jàng arxuraan ndax arxuraan yow mal xiyaam dafay ñëw di ramm kon ñi ngi koy ñaanal yàlla na ko arxuraan ramm yàlla na ko yàlla wane nag Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi fi des njabootam yàlla teg ci loxo ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di leen fay. <laughs> di la masawu ci li ñu bokk. di leen masawu tamit coono bu ñu bokk ñun a <laughs> tey su ma la nee Papa Thione lan ngay wax ci moom. Euh, d'abord damay nuyu euh, mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp. ak euh, mbokki internet yi fi teew yëpp. Mm. waaw ku mel ni Papa Thione restera toujours dans nos cœurs. Mm. Thione c'est quelqu'un boo xamante ni que c'est une légende. Mm. et puis on avait des relations particulières man ak moom. Mm-hmm. donc fii mën naa ni sama kër la. Mm-hmm. daanu ma fii monsieur daanu ma fi gëj. dama doon partager ak Thione nag ñun ñaar lu bëree bëri. et puis en général les dimanches. Mm-hmm. Euh, la ma daan invité su ma ñëwee nañu yéeg ci néegam pendant quatre cinq heures de temps toog ci ko lalam di waxtaan xam nga loolu moom boo amul nit ak affinité mu lay dugal ci néegam mm-hmm. mooy euh, wax dëgg yàlla séqu ngeen lu bëri yéen ñaar mm-hmm. li ma ci wax sànq moo ci nekk. nit booy ànd ak moom da ngay ànd ak moom pour le meilleur et pour le pire. dafay neex ngay ànd ak moom mooy naqadi ngay ànd ak moom. or que tey coon il n'est plus là nekkatu fi mais sa femme est là. mooy ajaratu ki ne jaaga. nga xamante ni jigéen ju mën góor. jigéen ju baax. jigéen ju fonk doomu aadama yi mais jigéen bu jullite jigéen ju fonk njaboot waaye ba pare tamit euh, doon mbokkit moo tax fii sama kër la fi ma ñëw nii sama kër la donc euh, maa ngi koy jaalewaat artiste Sénégal yëpp euh, di ko jaalee maanaam la culture sénégalaise jaale ko vraiment ay soppe am di jàmm artisam yu mu daan àndal ay nawleem ñu ci mel ni ñoom Youssou Ndour ñu ci mel ni ñoom Omar Pène ñoom Baba Maal ñoom Ismaël Lo euh, di leen xamal ni que ni vraiment quelqu'un comme Papa Thione il restera toujours dans nos cœurs. tey euh, ban souvenir nga am ci moom boo xam ne heure boo ko xalaatee rek sa xel day dem ci moom. Euh, souvenir bu may am ci moom mooy ba ma ko buggee invité groupe Futur Média mu jafe woon trop. Mm. waaw mu métti woon trop ndax ku xam Papa Thione xam diggante moom ak euh, Youssou Ndour c'est une longue histoire. Mm. Sénégalais ku ci nekk daan na am noo koy interprété. Mm. Euh, Youssou bëgg coon coon bëgg Youssou. Mm. Euh, nii gisee foo xam ne fu dul fekkee. Mm-hmm. nii nekk tamit foo xamante ni ñun fu dul gis ak fu ñu dul fekkee. mais nous les Sénégalais on a tout le temps l'habitude mm-hmm. di wax yoo xamante ni ñu dul maîtriser à cent pour cent. Mm-hmm. ba ma ko invité Futur Média. Euh, vraiment dafa nekkoon coow bu rëy ci dëkk bi. Mhm. waaw parce que ku xam euh, Thione Seck. Mhm. ci fulaam. Mhm. ci faydaam. ci détermination ak gëm-gëmam. loolu mënu ko fàtte. parce que ba ci jour bi mu waree ñëw sax. coon euh, dafa bàyyi ba 17h30 mu mu ne ma sama xarit nga. loo ma sant ma defal la ko loo ma ñaan ma may la ko mhm. mais nag affaire bi dafa dem ba ëpp ma loxo mhm. ndax ñu ñi dañ def euh, sama fans yi dañ def délégation mhm. cellule bu ne ñuy jóge ba hors de Dakar uniquement pour invitation bi ma ko defal euh, nu wax ni coon bëgg nu mu ñëw euh, Futurs Médias mu nekkoon combat bu metti nag ba émission bi desee plus de une heure de temps pendant une heure temps ba léegi xaw ma fu fu sama tànk féete Euh, à ma grande surprise. Mhm. Euh, du ma ko fàtte aussi. Mhm. Wally m'a appelé au téléphone chez moi. Mhm. Euh, mu ni ma Sidath euh, paa bi dina ñëw. ndeysaan ma ne ko Wally paa bi li may wax ni ça va pas quoi. mu ne ma jiitul paa bi rajo nga dem nga job paa bi mi ngi ñëw léegi. ma maa la ko wax je te le donc ce jour là toog naa ba dix huit heures. gisaguma Thione Seck may xoolal may lox. ngay stressé parce que dëkk bi ñëpp dañ na woon Thione Seck du ñëw. doon nañ ñëpp du du ñëw. ba ci yàlla defee jàmm ba coon ñëwee. loolu munoo munoo dama ni euh, ndam gënatul neexee lu mel nii. dëgg la ndax euh, ku mel ni coon mm-hmm. lu koy wax diggante moom ak Youssou Ndour pendant des années et des années. Mm-hmm. am na ñoo xam ne judd dañuy dañuy fekk ko fi. am na ñoo xamante ni avant ñuy judd sax. Mm-hmm. fekk nañ ko fi am na ñoo xamante ni ñu ci bëree bëri ku ci nekk histoire yu ak Youssou Ndour dafa yàgg nekk coow Sénégal. Mhm. mais keroog ba Thione yegsee biir Futurs Médias. Mhm. Euh, sag ak ndam ak contentement bu rëy. Mhm. musuma ko amee noonu sama àdduma ba mu daree liggéey. ci communication ba tey di liggéey euh, ci ci ci ci rajo. di invité keroog musuma am contentement bu rëyee noonu. moom ci boppam mu ñëw tamit def émission bi. avec cœur waxtaan ak ñun kafoore mm-hmm. Eh, émission bi waroon nekk benn émission mais finalement ñaari émission la mu dee mm. nekk ñaari mm. édition mm-hmm. tellement que neex gu mu neex mm. et puis Papa Thione nekk un un homme humble mm-hmm. un homme gentil mm-hmm. un homme euh, nit bu gëm yàlla xam nga nit bu dëggu nit bu véridique Thione loo wax ci moom am lu des au fait donc yàlla na ko yàlla xaare àjjana que Dieu l'accueille sur son paradis xam nga ñun loolu ngeen ci am di ko ñaanal mais aussi ñu jàppante fonkante te xam ni Euh, njaboot la fi bàyyi. Mm. ku ci mën euh, di ko nemmeeku ñëw seet si njaboot gi am na ci solo. waaw ndax coon ku ci nekk rek am na lu mu la lebal Sénégal daal. Mm-hmm. donc euh, li am solo mooy yal na yàlla def jàmm. fa mu tëdd yal na ko gënal fi mu jógee. njabootam gi mu fi bàyyi yal na yàlla teg loxo si ñoom. Mm-hmm. yal na yàlla jàppale leen jàppale Sénégal yëpp quoi en mm-hmm. fait yal na yàlla jàppale leen jàppale Sénégal muy baat yi nga xam ne moom la DJ Sida. lan mooy sa relation papa Thione. Papa Thione sama sama nijaay la sama rakk yaay la ma tëggal naa ko a vingt deux ans. ànd naa ko moom fu ne. mu doon ko nit ku baax. nit ku nit ku doomu aadama. nit ku mën a cëral nit. xam nga ah, yàlla def la star. te yow doxewoo jubbee star. boo ñëwee si si si biir soirée yi. amoo kenn koy làqatu mhm. da nga taxaw ak ku client bu ñëw da ngay nuyu mhm. xamuñ kooku kon nit ku baax la mhm. nit ku amoon diine nit ku fonk doomu aadama nit ku bëgg mbokkam da nga koy rek yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana mhm. suuf ay eh, si kawam yéen tamit yàlla leen fi yàlla bàyyi yàgg leen si seen liggéey mhm. ndax mbirum nii mhm. sama xarit la sama doomu ndey la ñu gis ne un an dafa daal di gaaw ñu bëri loolu la ñuy wax un naa mu tëdd ko ci suuf tey bi nga ñëwee eh, ci kër gi lan nga yëg vraiment bi ma ñëwee moom jooy naa sax ndax bi ma gisee euh, sunu yaay Kiné mu jooy. Mm. dama jooy. Mm-hmm. ndax ah, papa Thione. Mm. te la def mm. te kër gi saa bu ma fi saa bu ma fi mësoon ñëw. Mm-hmm. maam moom toog fii mm-hmm. di añandoo. xam nga daal mag nañu lool lool lool. mais nag ñu ngi sant yàlla. ñu yàlla jox joxe doomu muy Wally Ballago Seck. mu doon ko baax. fàttewul kenn ku doon ànd baayam. waali da nga koy ñaanal euh, waa gudd fan ak wér yéen bi oyof lool si barke Alaaji Fàllu mais ñu lay jaajëfal yow bu baax waaye kontaan naa jërëjëf yal na yàlla yàggal euh, seen taxawaay si barke Alaaji Fàllu jërëjëf ñëw daal di ñëw di témoigner li nga xam ne moom moo di loolu ñu sikk ak kookee di euh, Papa Thione gannaaw ba mu génnee àdduna tey muy un an ci suuf papa ñu nuyu la ba noppi doog a laaj sa relation Papa Thione nuyu nañ la. tey eh, bi defee un an ci suuf gaaw na ak gaawul lan nga yëg. ah li ma yëg moom dafa metti quoi. Hmm. Papa Thione nit woon. man sama wàllu bopp man. Hmm. bëggul woon dara lu ma metti lu ma mosoon def kër ga moom mooy ñëw woo ma. Hmm. wax ak man dànk dem na ma Cheikh Fall àdduna yàggul neexul mu ñor rek comme que sa lakk yéen a fay mu ne ma àdduna yàggul neexul wala ndekete moom ndeysaan du fekkee sax njëriñ tey du fekkee njëriñ bi yaa ngi koy wax tey boo amoon message booy jox Wally Ballago Seck lan lay doon. Wally li mu koy jox message bi koy jox mooy. Euh, papa dagguma la dama seen suñu papa Ismaïla maa ngi ñëwaat. tur bi naka la. Mami Tour la présidente Wally mhm. la. Mhm. suñu xarit mhm. mu nekkoon nit ku baax képp kuy doom rek. bëggoon nga am papa ju mel papa Thion. ndax ci baax gi ci dal gi. ci maandu gi. mu nekkoon nit ku baax mu nekkoon nit ku mënoon jàppale doomu aadama ci sutura Papa Thione jour dëj bi sax la ñu xam ni que vraiment tabaxoon na ay jumaa yu bari ak ay jàkka yu bari te ñoom ñun ñu njabootam sax yëguñu ko woon mu nekkoon nag loo xam ne yàggoon na si moom donc ñu ngi koy ñaanal fi mu nekk gënal ko fu mu jógee yàlla àtte ko ci yërmandeem xaar ko àjjana firdawsi te taf ñu ci leeram tey lan nga dund moom loo xam ne rek ba nga ko xalaatee sa rongañ wadd na bari xam nga Papa Thione nag man depuis 2009 man Papa Thione ak Waly rek laa xam. Mhm. depuis 2009 la ma yàlla boole ak Waly. Mhm. mu boole ma moom it présenté ma famille bi yëpp. Mhm. boo gisee Papa Thione nag dafa nekkoon sama xarit. Papa Thione ak yaay jaaga moom sama yaay sax boo waxee ñu ne ñoom ñoo ma yàq ndax bëgg giñ ma bëggoon. donc ak Papa Thione suñu souvenirs yi bëri mais bi ma ci gën a marqué mooy mois de mars bi avant muy gaañu juste bokk naa ci ñu rek laa lay ñaanal. loolu su ma ko xalaat ba tey damay jooy. mu ne ma yal na la yàlla may jëkkër non amaguma mais léegi yaanal ma rek. des fois aussi dama daan ñëw su ma defee ay xef wala ay ongles loolu tam marqué na ma. mu ne yéen lii yëpp pour bëgg a rafet yéen la da a naturel ma koy tooñ naan ko nii damaa bëgg nga am goro. mu ne ma léegi rek su jotee yomb. ak tamit am na lu ma marqué ci moom mu nekkoon nit ku am diine. loolu julli bu la fekkee këram par la force di nga jàpp di nga julli. voilà loolu mu nekkoon qualité qualité Papa Thione nag boo ko xamul moom mën na laa lakk mhm. nit ku baax la Papa Thione ku ko mere rek wala nga juge ko rek mhm. ci dëgg nga ko juge woon ak mhm. sincérité voilà mënoon jàppale doomu aadama ci sutura baax lool yal na ko yàlla fal cat am na nag njoxtu bu rafet rafet vraiment si moom ci fami Seck nag laa xamee ne mbokk du deret rek vraiment parce que dañu dem ba ko wax ñu ne doomu Papa Thione doomu Waly voilà ñu noonu tamit macha allah ñu bëgg ma lool lool lool defal ma lu nekk comprendre ma jàppale ma daal bu baax waali nag nga xam ne mooy sama papa di sama xarit sama kilifa mm-hmm. yàlla may ko xolu muñ ak njaboot gi mu fi bàyyi yëpp mm-hmm. sant yàlla nag bu baax mm-hmm. ndax lenn rek nam la nga génn àdduna bàyyi fi njaboot gu am diine gu lay ñaanal te vraiment Papa Thione am na loolu ñoom ñëpp nag Fatoumata Bintou Rasoul Momi Seck Aïcha Rasoul Aliou Badara Mouhamad ñoom ñëpp dañu koy ñaanal di ko toppatoo foo leen fekk ñu ngi ci armée yi di ko ñaanal ñaan yoo xam ne dama naan macha allah te loolu rek moo jot ndam nga génn àddina say njaboot taxawul a taxawaay bu rafet di la ñaanal donc sant yàlla rek yal nañu yàlla may ñu ñëpp xoolu muñ ndax Papa dafa bëggoon njabootam bëgg njabootu jaambur xàmmewoo ku mm-hmm. ko nag trop trop trop jaajëfal gis nañu tamit ki nga. Mm-hmm. jox ko cër lool. Mm-hmm. ndax ni ko yàlla meloo mm-hmm. coon dafa doonoon nit koo xam ne diine ko safoon. ak lu baax. ak tamit képp ku mu askanal. ñu fexe nga baax. ba pare doon nit koo xam ne. Euh, liggéey na ci Sénégal loo xam ne kenn dootu ko fàtte. coon wéy na lépp. way na lépp te it doonoon nit koo xam ne message am ku ko mësaan déglu di nga ci am loo jàngat ba defaruwaat maa ngi fàttaliku benn anecdote maa ngi lay jox benn anecdote dama mës a ñëw këram ñu toog di di di deux heures jot mu génne këram moom bu musaano yeewu rek tisbaar bu yeewoo rek dañuy julli tisbaar ñu ñëw lal basangi di julli am benn xaritam bu fa ñëw xaritam boo gisee oto bi mu gaare ak costume bi mu sol kenn mënu la koo wax ñuy julli waa ji teg la tànkam toog ne ba ñu jullee ba pare coon dafa gestu ne ko mais yow lan moo tax julli woo mu ne ko noo damay xaar ba egg sama kër summee ko pour mën a julli coon ne ko est-ce que xam nga ndax di nga yegg sa këram déet mu ne ko ah waaw mais mu ne ko noo yow ni la yàlla tere terale oto bii nga gaare ñun ñi fi toog ñëpp kenn amu ko bi nga sol plus de quatre cent mille kenn solu ko Ah, yàlla teral la ba pare ba ërëm euh, ërëm jot te jollowoo yàlla njukkal kooku nga kon mu wan la ne kooku nit ku diine safoon la te it mu doona nit ku am valeur koo xam ne euh, lépp lu mu wax dëgg la coono ñeme dëgg ak a ñeme lu baax merci beaucoup ñu lay jaajëfal àjjana sama ah. nijaay la ku baax la woon jërëjëf ndax man euh, tey papa coon salal la sama baay mu nekkoon sama patron nekkoon sama papa bari na de xaju sax dañ koy tënk rek góor gi guléet maa ngi door a wax ba mu génnee àdduna ba léegi ndaxte maa ngi xam ak moom ci loo xamante ni sori na dafa ma jëloon teg ma ci wetam yére mi doon sol yëpp maa ko doon lem doon ko fompal dàllam di ko toppatoo di saa yu mu seenee ndékk wala mu añ ba pare mu laaj ma garabam ma jox ko mu naan kon loolu defe naa sori naa ak moom waaw yegg moom foo xamante ni daal foofu rek laay mën a yem. bu soxlawee garab mu jox nga jox ko mu naan maanaam jege woon nga ko maanaam àdduna dund bi nga xam ne moo ko doon dund ci biir àdduna bokk nga ci ñi nga xam ne ñoom la mujjee gis wala bokk nga ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko mujjee jege. waaw bokk naa si ñoom ñoo ko mujjee jege. ndax euh, semaine bi nga xamante ni si la génn àdduna moom mi ngi génn àdduna bésu dimaas maa papa ba àllarba maa ko mujjee jox garabam fii ci kër gi si la quitté si laa mujjee gisee moom àllarba ci laa mujjee gisee moom ñu teg si alxames ajjuma samedi dimanche bañ ma ko waxee damay naan loolu mënta ne parce que ki ma gisoon noo waru mën a demee noonu mm. ah dof naa fi nag dof bu gaaw ndax afala naa def loo xamante ni ndax xama nit boo ko jegee nga koy toppatoo yéreem fu mu ne xam nga ko fu dàllam ne xam nga ko parfum ak mont lépp xam nga ko lu mu laaj nga génnee jox ko ko dafa demoon ba xamatu lépp dara sax si mbir yi mu ne lépp yow laa ko jegleel mooy maanaam homme de confiance te dafa jafe moo tax boobu ba léegi génn ma si ay média di wax ndax boobu ba léegi dafa xaw dafa day diis si man daal kon nag yàlla moo dogal mu mat un te njott nañ ñi wallaahi euh, yàlla Papa Thione bi ma xam dafa am ñaari Papa Thione Papa Thione buy way ak Papa Thione ci biir këram. Hmm. Papa Thione ci biir këram mooy dëggu na xam na yàlla hmm. bëgg na njaboot bëgg na soxnam hmm. loolu rek ko te lépp lépp lépp soxnaam la. moo ko fi liggéey. ki ne kenn mënul wax ci moom loo xamante ni amul amul sax fin. billaahi ma war a yàlla may ko. njaboot te foo seetlu Papa Thione fu mu waxee rek gërëm na soxnaam. te c'est très important nit ñi moo ñoo xamul lu ñuy wax gis nit ki boo ko jegee ak nit ki nga xamante ni jegewul nit ki c'est pas la même chose. nit ki boo ko xamul boo ko jegee boo ko xamee dëgg dëgg boo ko jegee dëgg di ngay xam ne nit ki kii mooy kan. Mm. Papa Thione woon na. Mm. Papa daawul faat waxtu. Mm-hmm. Papa Thione woon na boppam respecté woon na soxnaam respecté woon na njabootam mm-hmm. Papa Thione respecté woon na nit ñi. Mm-hmm. foo ko fekk dafa simple. Papa Thione bu añ tegee ñu ñëpp lay bokkal amul kii fii lay amul kii fii la dëkk balaa muy mën a añ ñëpp bokk ak ñëpp ay jàmbur Papa Thione day toog ci mbedd bi waxtaan ak nit ñi di kaf ak nit ñi di reetaan nit ñi Papa Thione daan na gis nit nëbbal ko ci ay mbiram te yàlla rek a tax ndax man li may wax nii waxuma ko pour intérêt comme waaye waaye dama ko wax tëggu parce que man it dama koy fekki kon donc li ma dund ak moom faa ma wax ko du toog benn jour te jox ma ko garabam kon respecté woon na euh, respecté woon na maanaam santem torop lool lool lool lool si lu mu gën a respecté même tey même ñun bu ñu musaanee wopp sax wala lenn ñu dal ñu maanaam def ñi day jël garab jox ñu wala mu jël xaaj na demal hôpital kon xam nga respecté woon na wàllum santé kon yal na ko yàlla yërëm fu mu ne yal na ko yàlla